naa ba tege nag ci suñu loxo ku ci nekk bu sañoon nekk ci bu sañoon li mu bëgg mooy dana tànn tànn bu rëy fa gën a seer wala mu luyee saar bu seer def ko ngir jënd sëñ Mbàkke sallallahu alayhi wa sallam def ko bisub jukkal ak ñaanal sëñ Mbàkke wa sallam kon nag defe naa ne bu amee bis boo xam ne mooy bis bi mu tegoon suñu loxo ñu wëlbatiku dugalaat moom sëñ Mbàkke Muhammad ci biir bis boobu noonu di ko ci ñaanalaat doon bis boo xam ne dañ koy defee ca wetu barabam bu tedd bu sell ba nga xam ne moo ko tànnal boppam defaral ko bopp bi kenn fépp ku dara ah sëriñ bi wëlbati ko wàññi ko ne yéen bis bi lépp lu ngeen ci wax rek fekk si naa leen ci suñu suñu sama nag kon nag bis boobu ku nekk ñun waral laa jaral lu ci nekk kon nañu gën a farluwaat te góorgóorluwaat te xam bis bi mooy ban bis ci ñun te fas yéene jëlee xam ne fii bis bi toll da ko war bis bi fii mu nekk nii da ko war a romb romb wér a wér a wér loolu nag ay xalaat xalaat nekk ñu ne li ci jiit ma war maa xalaat luy jëmale bis bi kanam su ko waxee ñuy xalaat nan lañu def ba def loolu noonu loolu ñu ngi suñu biir ñun yëpp amul lenn lu ñu keneen moom bis moom seq ko kenn suñu bis la sëriñ bi neen lépp noonu xalaat fekk nañ ci kon bis bi yegg si na kenn jiitu ñi ci la ci suñu responsabilité mooy ñu bokk ci waxtaan kon defe naa ne loolu mooy nekk tey ji bi du ci réunion bi tey ñoo ngi bàyyi gars yëpp ñu dugg ci bisimilah question diverse yi ci am a ko gis nga ci sa bopp léegi sëñ bi nii rek la bëgg a def li coow li bëri bëri ñëpp ci gën a sax. dañuy waxtaan rek waxal li nga wax yi yi yeesu yi sama xarit yow laa jaar ci de wax nga ci de salaamaaleykum siyaar boobu yàlla dogal na man sama fekk keroog maa ngi wax daal ci dëkk lu mooy mu ngi ko lan mooy fi ma bëgg a waxee ci wàllu boobu mooy. ngay wax ci kaw ngay wax ñu dégg. mooy ndimbal li nga xam ne mooy tawfeex bi mooy si bi kon daje gi ak mbooloo gi bokk na ci li wax ne maanaam li ko gën a li ko bokk ci gën a ñor mooy daje gi mbooloo gi mbooloo ak wala gi mboole suñu bopp ak kenn ku ci nekk da nga bëggal sa morom nga bëggal ko sa bopp loolu moo ci gën a ñor. moo tax ma ne kon alhamdulilah dinaa leen gis man yàlla dogal ñu xalaat su nekk ñuy saxal loolu di ko def loolu wax naa leen amul lenn lu ko gënal sëñ yenn njëkk yi fi njëkk gën a kawe ñooñu daje kon kon kon daje gi wax naa leen moom li ci waaye gën a mën dañ koo yokk ba ko moom ndax ak bëgg la moo ko xam ñaareel baax la ko topp mooy ci xaalis boo xam ne ci waxtaanam mooy wàllu yàlla moom garab bi ñuy wax ma ne ma ne garab bi ñuy wax maa ngi ko xool yàlla si bi naa xool waaye njëkk ñuy wax njëkk ñuy wax ak kenn bi nga xam ne genn kàddu googu ñu ñu ubbee ko di waxtaan yi ñuy waxtaan rek bi mu tàmbalee jël ba suñu wax ma wax ma ne bu nekk fàtte yàlla kon ñu yàlla ma ne saa ak suuf suñu maam boo xam ne damay xam ne ñu wax ñu ko yëpp fàtte yàlla ci boolu maanaam sax ci ñu waaye daa ne loolu mooy loolu mooy yóbbu ne nekk ci da da ngay jàpp ne bu sooxee yow nga sooxee te it ni ko yaakaar naa suñu maam def ko doon wax léegi kenn nekk da ngay jàpp ne maam yëf yi sa yëf yi bopp la gis nga li suñu am doon wax léegi yenn soññee sax man man damaa damaa gis ne maanaam ki xam ki xam mbir mi ñu war a demee dëgg dëgg dëgg du ay du ay ñu ñu ñu ñu ko ñu ñoo ko war dañoo maanaam firnde nañ ko nangam la ñu war a jox loolu moom yaakaar naa kenn ku nekk moom maanaam moom moom yaakaar naa kenn ku nekk moom loolu laa yaakaar xanaa gaaw gi yàq léegi nag li ñu mën a dimbali mooy maanaam képp koo xam ne yow jàpp nga ndax ñi bokk nañu ñu ñu ñaan jël la la bëgg yow bu la leeree maam mën naa bu la laaj bu ma tëddee laaj la si ñu doo ko jox daay gën a war a gal ko wala xamoon nañu ko ñu képp koo xamante ne am nga. waaw am nañu loolu da ngay liggéey. boo ko joxee nañ ko bind bu assurance yooyu nga am nga nga nga nga sa teg nag. kon loolu léegi dañ koy waxal. tànn moom lañ ko doon yàgg na am na gars yoo xam ne jot nañu yàq seen seen sos. ku am sa téeméer sax ñëwal ñëwal ne maanaam. boo boo boo gisee sëñ Saliou bi jox ko boo gisee su ma sëñ sëñ Cheikh bi jox ko boo ma gisee nga jox nga jox ko suñu orange mooy tam boo ko gisee nga jox ko bu ko defee bu ëllëgee. li nga xam ne mooy ki ngay laaj. yow bu ma jéggi moom. ki ngay laaj 1000 francs ni mu la ko jox moom. boo ko laajee tegi dem nga ko teg ki nga xam ne mooy laaj mille francs du joxe téeméer wala deux cent cinquante. waaw teewul nga soññee teewul nga soññee. waaw soññee tuuti ko laaw de. waaw xam nga gars yi moom dañoo doon mën a soññee. waaw joxe ñoo fas moo fas mbaam la ko soññee rek. soññee moom man waaw soññee rek. ku soññee rek wàcc xam nga gars yi moom kenn mënu leen soñ man man kii. waaw yow da ngay soññee rek ku joxe baax na ku joxe teewul nekk ci. Mbacke Balaye sa buri. waaw buri de man waaw. waaw. xasaay daal bu réeré bu kenn laaj maa ko maa ko saaj. xasaay bu réeré maa ko saaj.